bu fekkee état daf ko jox à quatre vingt pour cent peut-être euh, ci privé yi état bi daf leen war a taxawu d'abord taxawu leen euh, subventionné leen encadré leen comme ni mu ko defee ak Dakar Dem Dikk bi nga xam ne peut-être cinq pour cent wala dix pour cent au transport de voyageurs yi ñoom ñoo koy assurer ñu leen di subventionné pour que tarif njëgu transport yi euh, bañ a yéeg donc loolu la état bi war a def ak ñoom defu ko de sorte que ñoom seen liggéey dafay jafe euh, du ñu am marge bu baax boo xam dina leen permettre ñu fay seeni chauffeur ak yooyu correctement inscrit leen IPRES inscrit leen euh, caisse de sécurité sociale ak yëpp li war ci ñoom yëpp ñu def ko euh, itam mën a renouveler seen parc automobile bu oto yi amortiré bu ñu jeexee loolu tax tout le temps ay ay ay carcasse oto la ñu gis ñuy retaper di ko tegaat ci tali bi et tout euh, loolu responsabilité état la état defu ko mais li garaaw mooy ñoom bu ñuy ñaxtu te am nañ droit ñaxtu bu ñuy ñaxtu euh, état bi ñoom bu ñu leen yónnee préavis ni leen dañu war a grève dans un mois bu ngeen xoolul suñu revendication yi état daf leen war a woo wax ak ñoom mais duñ ko def abituellement muy transporteurs yi muy jàngalekat yi muy waa santé bu ñu defee préavis de grève état bi day toog di seetaan ba délai bi jeex ba ñoom ñu grève ba commencé def ay dégâts ñu soog leen woo comme li fi xewoon bii passé loolu jaaduwul état daf leen war di woo di wax ak ñoom seen revendication yi nga xam ne c'est légitime maanaam yu jaar yoon la état daf ko war a satisfaire dafa war a wut moyens yi nga xam ne mooy tax ñu satisfaire ko loolu euh, rôle état la te daf ko war a def loyalement parce qu'il faut se mettre à la place des transporteurs donc mais li ci metti yëpp ci askan wi lay dal ci askan wi lay dal euh, parce que grève boo déggee ñu koy wax diggante liggéeykat ak employeur la maanaam bu ñu la nee am nga droit dem grève mooy boo liggéeyul entreprise bi moo koy yëg mais même droit de boobu constitution daf ko encadrer ak loi yi dañ am nga droit dem grève mais amuloo droit grève ba lor société bi ba lor Euh, entreprise bi waxantuma laak nag lor population yëpp lor population yi amuñu droit grève grève totale boo xam ne bii wu ñu service minimum ndax ñoom service public la dañu war a assurer service minimum buñ ko deful état moo war a def ay réquisition réquisitionné ay transporteurs yu doy ci Sénégal yëpp nag waxuma Dakar rek pour que ñu mën a assurer au moins service minimum ñi war a dem hôpital dem faju yi dem faj ji élèves yi war a jàngi jàngi liggéeykat yi ñi ci mën a kii ñi ci amul oto mën a liggéey donc service minimum boobu état dafa war a réquisitionner bu ko deful bu ko defee ñoom bu ñu bañee bëgg a continuer grève te ñu réquisitionner leen dañ leen war a sanctionner loolu mooy yoon donc ñoom seen grève bi dafa ëpp parce que dafa lor askan wi bu ñu assuré woon service minimum kenn du ci wax dara mais grève totale boo xam ne bii non seulement dafa lor askan wi dafay daaneel économie loolu ñoom amuñu droit def loolu. Mm-hmm. amuñu droit def bi ci mujj mooy état dafa war a jëlaat transport public de voyageurs. Mm-hmm. jël ko peut-être à quatre-vingts ou quatre-vingt-dix pour cent mm-hmm. comme ci réew yu mag yi. boo jëlee France par exemple RATP euh, y a le métro y a les les les les bus et cetera et tout loolu yaakaar naa ni Sénégal xëy na mi ngi ciy liggéey parce que ñu ngi wax ay TER ñu ngi wax ay BRT ak euh, yokk bis yi ñi nga xam ne ay chauffeur la ñu woon chauffeur u car rapide wala chauffeur u taxi wala yooyu état société yooyu xam ne état bi moo leen di yore société yooyu ñoom ñoo leen di recruter su boobaa dañ leen di recruter di leen fay salaire di leen inscrire IPRES di leen inscrire caisse de sécurité sociale bu ko defee ñoom ñu am salaire yu correct parce que boo leen déglu actuellement ay quarante mille cinquante mille lañ leen di fay loolu jëriñu leen dara oto yi baaxul parce que kenn renouvelé wu ko parce que ñoom mënuñu jëndaat ay oto yu bees loolu yëpp responsabilité état la état daf ko war a jëlaat recruter ñooñu embaucher leen comme ça li ci des ñu bàyyi ko privé yi peut-être dix pour cent yeeg ñu bàyyi ko ak ay privé yoo xam ni ñoom aussi état def leen di encadrer du toog leen seetaan voilà. Euh,